am fa lu la yi te dañuy ñaan suñu borom suturaal ñu mu conti mu continuer noonu en tout cas combat bi nañ si jël suñu matuwaay li olof di wax dikk na moo jaaxal doomu aadama waaye dikkati na warul jaaxal nit tegoon nañ ko gis ngeen nu mu demee jafe-jafe yu fa am du problème mu violence ay erreur moo am ci biir làmb ji diggante Baye Mandione ak arbitre yi loolu du violence yaakaar naa ñu mës a ñëw suñu événement yëpp suñu gis ñu tëgg làmb ba pare sees damm fa wala xeer jóg fa jàmm rek la fay nit di gis ndax nag bu dara amateurs yi am na lu ñu liyee ak ñoom ñun làmb xëyuñu rek dugg ci dañ ci jaar ci bareen yu bari nit ki nag loo doonul taalibeem doon doon sëriñam man tey su ma ñëwee ci làmb képp ku fa nar a def lu naka sudul noonu su ma jàkkaarloo yoo xamante nañ ndax yàgg nañu supporter làmb xam nañ ñuy gàmm ak ñuy raas dem suñuy làmb dañ ciy jël ay matuwaay yoo xam ne amateur yu fay ñëw yëpp dañ ciy am lu leen neex yàlla nag moo ñuy dimbale ci loolu ñu ngi ñaan yàlla kàttanal ñu ba bii mel nii fi weesu wala mu dàqaleen te am nañ yaakaar ne noonu lay demee ndax tamit Gambie ak Sénégal benn la ñi jugee Gambie dañuy ñëw xam ne seen réew lañ jëm si waa Sénégal tamit teeru leen xam ne seeni doom la ñuy teeru ak seeni mbokk waaw Baye Mandione a ngi nii mooy dalal xoyantaan xoyantaan a ngi nii suy ñëw ñu muy ànd ak gëm naa ne jàmm moo leen indi ndax nit nag su fekkee da nga bëgg benn affaire mu jaral la nga bàyyi tëj sa kër bàyyi sa famille bàyyi say waajur déplacé wu réew ak réew soo ñëwee war nga wane li la indi supporter sa mbër ci jàmm làmb ji jeex ci jàmm këla gan làmb nag ñett ci am dara la déplacé wu nga ñëw ba stade ñu daan ko sa yaram dina nagab nagab goo xam ne doo tal xeex su fekkee bëgg nga ko laay wax nit tamit soo ko bëggee mu ñëw di bëree am ndam di nga yëg mbégte goo xam ne doo tal xeex wala ngay tooñ doomu aadama kon làmb ñii ñëw di ci xeex yëpp bokkuñ ci ñun topp nañ bër fu nekk dem nañ fu nekk làmb lii fu police mosuñoo dal kenn mosuñu sotti ndox kenn mosuñu teg fu mu ñu warul teg kon amateur yi ñëw di dund làmb nañu ñëwee noonu waaye léegi nag làmb ji li phénomène bi am gis ngeen ko supporter bi day toog bu ko mbër mi joxul billet du dem mbër mee koy jox billet jox ko tiset mu ñëw ba pare di def lu koy yàqal loolu rafetlu wuñ ko ñun supporter nañ mbër ba fi ñu toll nii musuñu mbër musuñu may billet billet lu mu seer seer ñooy jël suñu xaalis dem dagg ko nit ki nag lépp lu mu def